Monsieur le ministre des Affaires étrangères, le Sénégal a une tradition de soutien à la Palestine. Durant les années 1960, le président Yasser Arafat détenait un passeport diplomatique. De Senghor à Macky Sall, en passant par le président Diouf et le président ablai Wade, le soutien du Sénégal n'a jamais fléchi d'un iota. Quand on parle de la Palestine, on doit connaître l'histoire d'un pays. J'en profite ici c'est le lieu où on peut déclarer une guerre à un pays, l'Assemblée nationale. Vous êtes des diplomates, que pour laquelle on parle d'un discours diplomate. On peut pas être un parlementaire et déclarer la guerre à un pays. Le fait d'accuser un pays frère qui est la Mauritanie, avec qui on partage des investissements de de dizaines de durées de milliards d'euros, on l'accuse de l'esclavage dans son pays, la représentation nationale de ces langages, Et c'est pas ça la vérité, ce qui se passe en Mauritanie. Les Mauritaniens sont nos frères. Dans tous les pays du monde, il y a des problèmes. Il faut les régler diplomatiquement. Donc, Monsieur le ministre, moi, je voudrais, encore vous féliciter et en profiter de saluer le commissaire chargé du pèlerinage, l'excellence Sarr. L'année dernière, j'ai eu la chance, comme, comme beaucoup de Sénégalais, d'effectuer le pèlerinage à la mer. Mais nous vous félicitons. Là où les privés des VIP payés des dizaines de millions, on a trouvé des gens que la commission a amenés dans les mêmes conditions à Mouna. Donc, félicitations au commissaire, nous vous félicitons et nous nous encourageons. Mais aussi, il faut communiquer, il communiquer qui, comme Rennes, Advi, février, le, comme Advi, février, le, Monsieur le Président, comme Advi, février, le, il faut nous communiquer qui Sénégalais, xam date bi aussi c'est important beneen bi beneen bi dañuy remercier exemplarité ay sénégalais yoo xam ne ni ñu ngi France ngeen remercier l'ambassadeur bi ñu photo Serigne Touba yi génnee ñu gis ko dañu def délégation wax ak ambassadeur mu dimbaleen jënd ko yëpp cité sénégalais yooyu diaspora bi fier ci ñoom ku mel ni docteur Khadim ak docteur Chérif Fallilou Mbacké ñu ngi leen di nuyu di leen bi ñu ñëwee aussi wax ko bi ñu àndee dem ci de la culture décembre le 23 ou le di nañ def au musée ñëw photo Serigne Touba yépp def ko président Macky sàll yombal lépp def lépp ñu ngi ci gërëm di ko sant beneen bi monsieur le ministre comme comme ni ma la ko waxee léegi Air Sénégal waxoon na dañuy def ay vol Jidda Dakar Dakar Jidda ndax yéen a ngi ciy collaboré ak fan lañ ci toll pour permettre Sénégalais ñu mën dem di umba beneen bi mooy émigration clandestine ku ne wax na ko fii la ñu fekk Barça ak Barça yàggul dara président Macky Sall dafa am discours politique buy buur xale yi ne leen su ngeen demee extérieur man ngeen am lu ne fii homme politique wax na fi chauffeuram sax dem na keneen dem na discours boobu moo war a changer ñu wax aussi ak les pays waxtaan ak ñoom émigration il faut mu changer ñu waxtaan lii pays yëpp Afrique yëpp la c'est le monde entier ñooy souffrir ci émigration ñu war ci waxtaan trouver yeneen moyen pour régler lii mais lii du président Macky Sall du président Ablaye du keneen émigration la nañ trouver des solutions pour ça beneen bi beneen bi monsieur fi may jeexale monsieur le ministre des affaires étrangères suñu mbokku góor yi ñu ngi abusé wu baax ci autorisation parentale loolu il faut ngeen xoolaat ko da ngay gis góor bu bëgg a bloqué jigéen yi am ak mu ay doomam di ko ci utiliser di ko def lu ko neex loolu ñu ngi lay ñaan ngeen xoolaat ko bu baax ak sa mbokku ministre de l'intérieur je vous remercie